li ci gën a fës nag bokk na ci atam ren ji mooy at bu njëkk rek ñuy amal bébé Achoura ci ginnaawam moom ma ko sosoon di Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo waaye nag teewul njaboot gi am ci taxawaay gu rafet rafet ginnaaw ginnaawam ñaari bébé sax ñoo am atam ren jile dañ ca dégg Cheikh Ababacar Dieng gannaaw tournée bi mu doon amal fii ci diwaanu ma moom nag jëwrin gi nu dénk wàllu mbéy mi ma nga woon ca ñooxu ak waa FEP Promas visité seen tool ya rafetlu seen ak liggéey ñaax leen Moussa Baldé dañu ko dégg ci biir xibaar yi ay fan rek ci suñu diggante le l'examen baccalauréat bi ndongo daara yi ne naam naka coronavirus bi am na lu mu gàllankoor waaye nag teewul seen ak xel dal na ci wàllum njàng mi daañu ànd ak Cheikh Tidiane dem ca centre Gambetta lycée Valdiodio Ndiaye ak yeneen i centre bu li lépp yembe mbokk yi dañ ca teg xabaar yi biti réew xabaar tàggat yaram ak li yéene kaay yi xëyee tey jile El Hadji Libas Mbaye moo féetee ci wàllum xarale gi frim fànce gi bu nees ki sele Le journal moo nekk ci waxukaay gi asalaamaaleykum mbokk yi dalee nag euh, jàmm kaddu gi di yàddoo fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé euh, xibaar yi nag dañu koy door rek na ma leen ko euh, junjee ngir nag yëkkati drapo l'islam moo taxoon nag mu taxawal bébé Achoura moom Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo ma woon ba tax na nag ni ki démb ba ñuy teral ñaari bébé yi am xol yëpp àndandoo tooy Cheikh Ababacar Dieng. dañu doon feete si ay nit yu juddu waaye mujj gi daa mel ni nit ku faatu doon fàttaleku ñu bëri ci jullit yi fanaanee jooy démb Cheikh Mouhidine Samba Diallo daanaka ba guddi gi xaaj ci hôpital régional bu ñu dëppee Alaaji Ibrahima Niass bébé Achoura lañ doon feetu moo ko fi sosoon lépp nag ngir yëkkati drapeau l'islam ca kaw sage-femme yi ci hôpital bi ñoo njëkk a jooy kilifa diine gi. du ñu commencé nag te suñu xel du dem si suñu papa suñu cheikh suñu guide le Cheikh Mouhidine Samba Diallo parce que ñu ngi continuer toujours di bénéficier ci ay enseignement am ak ay œuvre am. bi de l'année te bokkul ak ñun jullit Cheikh Mouhidine Samba Diallo amoon xalaatu comme tam tamxarit moo njëkk ci atam jullit yi faaw ñu ci def ab xew-xew ndax doomi diine ji di ko fàttaliku lii moo indi xalaatu bébé Achoura juróomi at ci ren ba mu ko tàmbaleeg tey at mi njëkk nag fekk mu wuyu ci boromam nekkuloon lu yomb dara ci organisateurs yi ñu amal ko niñ ko bëggee saa ba si fay mooy président commission bébé Achoura suñ xel mënul ñàkk demaat ci sang bu baax na léegi juróomi at moom moo ci xalaatam bu rafet bi moo jàppoon ne suñuy bés foog ñu koy xamal suñu askan ak suñu njaboot ci loolu lañ nekkoon at bu ci nekk mu fekke woon ko dañu ci gunge tey ñu wet ci lool suñu xel dem ci moom lool. xalifaam tey di Cheikh Ibrahima Diallo nekk ci boppu njaboot gi lépp lu baay ba daan def benn rek jéem na koo def ñett lii sax moo tax bi ñu wootee ne ren bébé Achoura bi du kenn waaye ñaar la amul beneen waajaay fekkun na lépp mat ay xar ay yére yu ñëw ba pare am bloc ñu def xaalis ba mu dis gann lii lañu yebee bàyyi nen yi ak seeni suñu yaay Ramatoulaye Touré mi dëkk Daaro Pakacaar ak ñoom te gunge wasin wi ne xolam sedd na di sant suñ borom bu baax a baax te xam ne lu am lu nekk ci suñ borom la jógee ñu a a te di leen sant ah, bu nu ñuy lu baree bare ndax tiraanga la yoo xam ne ji suñ lu jógee ci xewal ak suñ borom ak jëmmi doomu aadama yi toog di leen sant rek te di leen delloo njëkkoon lii nag benn rek la ci liggéey yi nga xam ne xalifaab njabootu ca Thierno Alpha Hama Diallo bi woon di Cheikh Mouhidine Samba Diallo samp na ko njaboot gim fi ba di ci béy seen waar ci lu fës sax Oustaz Ibrahima Ndiaye kenn la ci jege ñaaleem yi. sëñ bi bi mu génnee àdduna léegi daanaka ci quatre mois la doog a kon ñun suñu rongoñ daggagul suñu xelaat ba tey mu ngi ñun suñu xol fiixagul mais ànd ak lii de ba mu fi bàyyeekook léegi amul benn occasion boo xam ne sëñ bi doon na fa teg tànkam doon ko marqué lu dul occasion boobu marqué nañ bébé Achoura dinaw ñaari yoon ci clinique Bintu ci Jalañ benn yoon ci hôpital bu ndaw ci Kas nag guren gi mooy ñaareelu yoon muy amee ci hôpital régional bu ñu duppee Alaaji Ibrahima Niass Baye. cant ak ngërëm Cheikh Ababacar Dieng dañuy des nag ba tey ca googu leen biir ñoom nag njabootu Sagne Bambara googee jaaxee nañ ca rek jàppale l'hôpital ba ci ay jumtukaay yu xeex ak mbas bi feddali ko la ci seen ak digganteeg personnel ba waaye tamit nag daal di teral bébé Achoura ya ak seen i wayjur njiital commission bébé Achoura Sabassi Faye mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. waaw sant yàlla ren yàlla def na sutura ak teraanga andi nañ fi ñaari xar ñaari kuy yu ànd nañ ci également pour participer ci xeex bu ñuy xeex mbas bi ànd nañ euh, logistique jàppalee structure bi surtout de santé bi ànd nañ logistique ba am solo bés bi bu fi ndaree ñëw ñu teral gan ñu fi am ñoom bàyyi leen fi lu ci nekk loo xam ne yaakaar nañ moom moo gën ci approche kon ñoom teral nañ leen tamit jox nañ leen ay mandarga pour feddali suñu kóllëre ak ñoom pour jaajëfal leen en tant communauté bi nga xam ne gis nañ ne ñoom seen liggéey solo teral gan yi andil nañ leen ay gaam andil nañ leen ay yére andil nañ leen ay am nañ ci ay meew ak yéni mel yëpp andil nañ leen ko wajuru góor gi jàppale nañ ko tamit enveloppe dolli ko ci xaram yi jàppal nañ ko grand bu rafet bu dàq suñu bos bu fuuf yaa ji kazalika jox nañ ko ay tuseem jox nañ ko tamit enveloppe waaw loolu daal lañ andi pour barkelu ci rek waaw tànneef la waaye tànneef suñu borom la ndaxte ba mbas bi ñëwee dañ doon éviquer comme niñ doon defee daaw di déplacé wu mécanisme classique bu ñu doon def dañ kaa bàyyi dañuy waxtaan kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllu hôpital yi mu nañu ñoom sage-femme yi dañoo am seeni groupe whatsapp ci la ko jàllalee ci groupe whatsapp ñu toog ñoom ñoo oo wax ne am nañ benn ku gane àdduna ci hôpital bi moom la ñuy xaar boobu ba léegi nag am na beneen hôpital bu ñu woo après waaw lu jiitu lool bii mooy hôpital bu ñu njëkkoo te def nañ juróomi édition ñoom ñaar rek lañ ci amagum euh, bi lan la ku son lim si jublu moom ciy rafet njort rek ndaxte jàngalekat la la woon mën na am yëg-yëg yoo xam ne bu ko yàlla dimbalewul mën na fàtte condition doomi aadama am jàpp ne doomi aadama du am mandarga du am daraja du am titre mooy tax mu weesu doomi aadama du am jafe jour foog ñuy fàttali suñu condition te lu njëkk ci doomi aadama mooy dina juddu dina am soxna laata muy dëddu àdduna kon boo ñëwee fii gis ay gone yu judd rek dina am jàngatal bu def loolu waaye mënu wax ne ci loolu kese la mën a xalaat ndaxte ko fonkoon assura amoon na fu ci Chaban na ki Badar na ki Fatoumata defee yeneen bés ci yi jàpp naa ne loolu bokk na ci li nga xam ne moo taxoon mu instauré lii Sabassy Faye initiative di xalaat boobee naka lu rafet la te it nag ñëpp war nañu koy rey ndax nag lu baax kenn waru cee jiitu jullit ñi rawatina nag wàllum ndimbalante ak taxawu doomu aadama lu ni mel nag di gis-gisu Mamadou Ndiaye chef de service social bu l'hôpital régional mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng parce que daaw jotoon ngeen ñu fi ñëw ah année ba ko nga xamee ne ñoo juddu comme ay jullit yoo xam ne ganase nañ àdduna ñu leen di ñaan ngeen ñaanal leen gannaaw taxawu bi ngeen am si xale yi lu leen di gunge mais aussi njaboot gi aussi lu leen di jàppale si yor bi naa loolu lu am solo la nekk modèle la bu société musulmane war di multiplier di fexe ba à chaque fois ñun société bi nga xamee ne ñun ñoo fi ëpp nekk une majorité bu mag a mag mag plus de quatre vingt pour cent mais buñ demee suñu ay jëf suñu ay wax suñu ay jëfandu

buñ demee bay rafetal ak ñoo xam ne bokkuñu diine ñeen ñi bokk diine ñoo ko war a gën a mën am ay école yoo xam ne dinañ si suñu ay doom bañ leen jox si yeneen loxo ñoo gën a mën a dimbalante suñu biir donc yooyu yëpp yaakaar naa ne sëñ bi loolu lañ ko mas a xamee taxawaay boobu lañ ko mas a xamee ku romb si route nationale bi gis nga ne loxoom jogul si dëkk bi mais de delà de sañ bambara da ngay gis ne fépp foo dem si Sénégal surtout si Kaolack bi am na action yu bare bari loolu aussi ñun en tant que jullit dañ koy rafetlu di ko sagoo bu baax a baax mais aussi yeneen jullit yi nga xamee ne ñu ngi fi mais lii nekk modèle pour ñoom ñu xam ne ñun suñu société warul yem si julli warul yem si toppatoo suñu ay kër mais war nañ toppatoo wante suñu ay biir war nañ mën a créer ay école yoo xam ne suñu doom yi dinañ fa jàng bañ a jéggaani war nañ mën a am ay daara yoo xam ne dina gën a mën a moderne te yaakaar noonu loolu ay modèle la yoo xam ne passé jaajëfal ko moom Cheikh Ababacar Dieng ma taataan yooyu le kaddu ndem nag ña nga ca wàllum tam xarit ca la ñuy des daal di àddu jëmee ci leneen euh, ci ndimbalu njiitu réew mi ak soxnaam njiital mouvement Rahma nag taxawooti na rek askan wi euh, ci ay ndimbal ngir nag ñu daal di waajal tam xarit bi bokk na ca nak lim bu takko takku ci ay nak ceeb ak diwliñ ba tax nay itamit mu daal di cay jaare rek daal di sant bu baax a baax Mariam fay Sall ci taxawaayam ci këru diine yi ak événement yi Mouhamed Ndiaye mi ngi ci micro El Hadji Oumar Cissé alors baaxoon nañ fii tam heure bu première dame Marème fay sàll daa ay ndimbal yu jëm ci ay nag jox ko population Kaolack loolu moo ñu fi dajale tey muy côté nangaan bi côté abattoir Fass dafa xaw woon a néew lool li fi duggoon ci ndimbal yi nga xam ne moo jógee woon ci président Macky Sall suñ manee mottali ñu jéem ko ñu fexe ñoo ñu jëm ci recenser li nga xam ne jot nañ ñoo teew tey pour ñoom tam ñu jot ay aide ci aide yooyu nga xam ne président Macky Sall commencé woon na ko ci biir réew mi moo waral ñu doxalee ko ñuy tey di sant bu baax nag président Macky Sall ci taxawaayam ci ndimbalam démb rek mi ngi yónnee mu dugal loxoom bu baax pour yombal mbooleem li nga xam ne ñu ngi koy dugal ci biir population bi wax naa léegi ci trop sax na Marème fay Sall ne amul benn at boo xam ne bu tam xarit jotee du jël man-manam ak kattanam ak xolam ak xelam yëpp yónnee ko Saalum mu defati ko nam ko daan defee barki démb yónnee na fii loo xam ne ci fexe population bi xam naa ñëpp am nag yombut waaye yónnee na fi ci loo loo xam ne fa tabaarakallaahu loolu mun ta weesu yëg mun ta weesu respect mun ta weesu am sentiment ci population ci région de Kaolack loolu lu muy und rek mooy toujours li may wax ne Kaolack Macky la région de Kaolack Macky la moo tax ñoom itam duñ toog duñ xaar benn jamono boo xam ne gis nañ ne Kaolack soxla na rek kenn du leen ci jiitu damay wax ne ñun ñi fiy fanaan di fi yeewoo ñoom fiy daj di ko fi def sax ñu fi fanaan di ko yeewoo defuñu ko loolu dafay baax ñu seedeel ko mboolem borom xam-xam yi fi nekk première daam ci ndigalu borom këram mu ngi jàpp bu baax ci région de Kaolack ci tey ak démb musul dañ ndimbalam di dugg ci loxo ci gàmm yi kilifa diine yi nekk ci biir dëkk bi ñëpp mën nañ ko seede amul benn événement religieux buy jot boo xam ne ndimbalam du jóge foofu ñëw fekk ñu fii Kaolack pour ñu tasaale ko population bi bu baax jaadu nañu yeesalaat suñu kóllëre yi ginnaaw président Macky Sall ak lépp lu mu nekk fu mu rek ndama Sénégal yendu fa démb yi may faral di waxtaanandoo suñ ma rendre compte discours ak taxawaay bi président taxaw démb ci France da ngay fier pour nekk sénégalais. dañuy des nag ba tey ca googule mbir Serigne Khalifa Niass ne Modou Ndiaye Rahma nag ndimbal luñ ko mënti jox rek du jàdd ruq te it nag poche am du ko fekkee ba tax na nag mu ñaanal ko yàlla boole kook di wax la leen takkee ñoom ñaar jaraafu Kaolack ba woon Khalifa Niass ci micro El Hadj Oumar Cissé. Modou Ndiaye. maak moom histoire bu yàgg la doolu tey bi mu jógee di créer mouvement mi itam raxma la ko tuddee te raxma ku ne xam na ko ci arab moom mooy yërmande yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónni bokk na ci li mu ko gën a wax ci li gën a rëy mooy ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin maa ngi lay yónni pour nga nekk yërmande ci kaw mbindeef fi ak foo yi kon moon njaay su créer raxma tuddee ko raxma dafa doon lu am solo te li koy wane li koy tegtal mooy lii dajale joom yàlla yàlla di leen dimbale di leen xam seeni tawat di ko jéem a faj politiciens yi nag yàgg nañ leen a gis xam nañ leen bu baax ak seen façon ak seeni i danañ la jox sax ndimbal pour askan wi waaye du yegg waaye jër jëf moon Njaay ak ndimbal lii ak fu munti jóge man de wóor nga mën a yokk nga ci sas lëf pour mu gën a law ci biir askan wi kon boog jëf moon Njaay yàlla dana la fi yàggal dana la defal sutura itam dana la sàmm dana la yegguloo fu njortu yeggutoon jàppale waa jaamu yàlla yi fa ama zabadu fa yadabu jufaan wa ama maa yanfau naasa fa yamkusu fi l ard yàllaa wax loolu du man kon sa ndimbal yii na la wóor ne dana yegg yàlla dana la bàyyi ci ko suuf ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu manière bi nga defee ko xam ne peut-être daaw demee nii façon bi moo baax ci nit ñi jox leen ceeb jox leen diw jox leen ndawal parce que askan wi loolu lañ soxla yàlla yàlla fay la yàlla yàlla guddal sa fan yàlla a booloo wu law ba ci Kaolack yëpp ak ci département bu Kaolack. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. ngeen ñuy toppandi ba tey nag kaddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo lii tamit rek junjoon naa leen ko ci euh, bopp euh, xibaar yi euh, kuréel gi di FEPROMAS attaqué ay producteur ci Daaru Salaam Nioro ñoom nag gisee nañu rek ak Moussa Baldé ànd ak moom nemmeeku seen tool ya waaye tamit gaaxal ko seen i jafe-jafe lu ko jiitu nag ñu gërëm ko njukkal état bu Sénégal ca na mu leen di gunge Nimna Diayte njiital FEPROMAS la ñuy teewlu ci micro Cheikh Ababacar. ku ñëw si tool yi ñu ne jigéen moo bay 10 hectares maïs moo bay 4 hectares gerte yii moo bay 5 hectares mille yi nga xam ne am na appui dañ ne feccum liir bu neexee ndey jaatiyee sa mbagg kon ñu leen di gërëm bu baax a baax baax di wax rek nag ne fédération la fédération boo xam ne dafa regroupe nekk ci trois régions Kaolack Fatick Kaffrine regroupé deux mille cinq cent soixante-trois membres am vingt-deux yoo xam ne ñooñu ñooy dem ci banque bi signé ak def convention signé am crédit crédit yooyu mooy tax bu ñu ko banque bi joxee rek fournisseurs yi ñoom dañ leen di def bi après banque bi li nga xalaat du si teg baat parce que dina xam ne am na fu ñu koy fayee te daañu ko fay loolu ñu ngi leen ciy gërëm bu baax mais président ministre bi yow lañ koy wax mooy am nga service technique bu compétent bu bëgg li ñuy def parce que mënoon nañ ñuy ay ndaw lañ ay xale lañ ñu organiser wu bu ñu xaajoon benn par benn amuñu doole mais le fait que ñu booloo nekk 2563 am 1081 femmes xëy na suñu doole booloo boobu moo may tey bu ñu demee ci banque b moom mu ñeme ñuy lebal 500 millions mu ñeme ñu koy lebal ñu dem état subventionné ñu nañu ah yi fexe leen ngeen yóbbul ma 220 tonnes tonnes maïs ci commission yi fexe leen ngeen yóbbul ñu cent quatre-vingt-dix tonnes ci commune Taïba gerte loolu bi mu ñu ko defee aussi alhamdulilah fekk nañu am produit bi gàddu ko yóbbu ko defee ko ni ñu kon loolu aussi dañ leen siy gërëm di leen wax rek nag ah nit nag boo koy góngee muy góorgóorlu du ñàkk lu manqué li manqué nag lañ leen di wax ngeen jéggi gën siy jàpp muy matériel agricole jàppale nañ ñu si dix ministère agriculture si trois cent suñu loxo dem bëggee nañu ay tracteur parce que tey ku wax mbay mboq ñu ne la 3796 hectares kooku bëgg na ay tracteurs yu mën a temps ah. tey dugub bi ku wax transformation bi kon kooku bëgg na tey ay unité transformation yu dimbali jigéen yooyu pour li ñuy transformer ñu mën a nekk fu baax amee matériel bu baax machines yu mën a bojj ñu mën am machines yu war a dugub ji nga xam ne kenn sa dugub du yàq parce que njukkal bu baax. nim na jeyte euh, producteurs ya nag ña ngay wax ne daal li ñu bëgg jamono ji rek mooy ñu ubbil leen frontières yi euh, musal leen ci l' yi te gunge leen ba xam nag ndax mbay mi du am avancement am déet ànd ak yi tamit di wax ne ministre bi jégadiwu leen euh, Ibrahima Thiam producteur la syndicaliste la mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. ñuy gërëm ministre bi si ñëw bi mu fi ñëw ak heure bi mu fi ñëw waaye ministre bi dama ne weddi gis bokk ci yéen tool yi xamu leen tool lu tax mu mel nii daaw dañoo taxaw ñu jox ñu engrais bu bon ñu taxaw dem ba ministère ne ko bi engrais bi jox baaxul ren mu góorgóorlu ñu jox ñu engrais bu baax mu ñëw ci tool yi gerte ga dem ëpp na vingt centimètres loolu lu ko waral mooy lu baax lañ jox tey mboq mu def lu baax lu baax lim def dañ koy wax dañ ko wax te rek tax mooy gis nañ ne nag Sénégal daaw bi mu faloo dañ ne moom dafa ay gaaf ma ne leen tey na ku ñëwagut ci ci réew dalagut nan lay aaye gaaf ren corona dafa am ñu tëj dëkk bi tëj réew mi Sénégal baykat yi war koy bayal a dundee tey dama ne jaar sa sedd na lan moo ko waral tey corona bi dama ne yi ñu tey yëpp Sénégal bu nawet wàccee duñu am bi yàlla ak moom ñu taxaw gis ko dama danañ ko a nangu sax sant ministre def jox maa taxawoon ne dara baaxul niñ ko séddalee baaxul waaye nguur gi def na li ko war jël na xaalis jox na ko opérateurs yi opérateurs ko joxe ñoom ñoo taxaw responsabilité ne danañ joxe gerte te joxewuñ lu baax joxewuñ lu mat loolu nag daf ñu métti loolu li nga xam ne moom lañ lay wax monsieur ministre gerte gi nga dugg la la waxoon daaw laay waxaat mooy bi ñëwee ñu ne la kilo gerte deux cent dix ñu xolli ko muy ñaari kilo ñu bugg mu départ téeméer muy xolli sol bi da ne danaa ko dem ci Macky Sall ma wax ko ko bu ko d'accord moo tax gerte dana am nga ñu ubbi frontières yi bu ñu boolee ak opérateurs yi ñu ñuy seeñu liñ bëgg mooy ñoom dañuy nal suñu deret di ko lekk kon nag comme ñu ngi a laajoon nim na ci tool yi dañoo bëgg ngeen defal ñu suñu tool ñu ñu koy délibéré béykat bi mën a am kattan toolam bu ëllëgee bailleur bu mu ko jox mu mën ko financé mu mën a liggéey réew mi jëm kanam kon nag ñu ngi gërëm ministre Ibrahima Thiam taxawaayu ñooro nag ci mbéyam dugub gerte ak mboq kenn dootu ko natable te it nag waa FEPROMAS ña nga cay def liggéey bu mucc ayib kon it nag foog état bu Sénégal rek daal di leen di gunge ci wàllum jiw ko xamle ci tournée boobee mu dooree ca Dieng. dañoo am mbégte maanaam commencé suñu tournée fii ci Saloum ci Nioro xam ngeen ne ñooro nag wax ñooro wax département agriculture fii dugub mbokk ak gerte moom defe na amul benn département buy naa presque moom mooy gën a béy waa Nioro te li ñu gis dafa dalal suñu xel parce que gis nañu depuis Kër Ayib bu ñuy rombee frontière bi ba fii tool boo gis moo gën a rafet moromam fu ñu taxaw aussi soxlul nga nekk euh, ingénieur pour nga gis ne fii tool yi mën nañ ci yaakaar production bu mag euh, may gërëm suñu njaati gi fii nga xam ne moom mooy ñi majayte président fait promesse loolu dafay wane ne organisation dafa am solo ñoom dañu organiser seen bop ministère de l' agriculture xam seen adresse xam ne bu fa yóbbee matériel ñoom dinañ ko liggéey loolu moo tax ñu jox leen jiw bu bëri jox leen engrais bu bëri jox leen tracteur fukki tracteur pour ñu mën a liggéey te rëccuñu ko parce que ñoom apparemment li ñu béy upp na juróom-ñaari junni hectare ci dugub gerte ñu ngi fii ci toolu gerte toolu mbokk bi mu ngi suñu kanam ak dugub dinañu l' agriculture ñu ngi ci yoon bii ministère de l' agriculture mu ngi seen wet dina leen gën a jàppal ci am jàppale seen magasin boobu bi ñu am ñu dooleel magasin yi fii ci département de Nioro li ñu gis aussi mooy matériel agricole mooy dooleel mbéy ñoom am nañu matériel naam doyul mais loolu moo leen dooleel donc Sénégal dañu am programme boo xam ne pour ñu dooleel suñu mbéy président Macky naam indi na fii ay junne junni tracteur wante doyul donc war nañ ko mën a yokk ci programme bu bees bi ñu am pour yokk matériel agricole boo amee organisation am matériel agricole si waxee mu ñëw à temps te mu baax donc loolu moo jox résultat bi maanaam résultat boo xam ne kenn laam-laamewul en tout cas heure bu ñu nekk nii mbéy mi fii ci Nioro mu ngi dem normalement te am nañ ci yaakaar Moussa Baldé jaaxee na ca nag daal di wax ak yi doon grève di ingénieur agronome yaaju ci DER DER yi xamal leen rek nag yoon wi ñu war a jaar ngir seen ak aajo daal di faju ndax nag dugub ne moom mooy siife ay accord ànd ak ne tamit nangul na leen seen ak sañ-sañ muy amal ab travail loolu sañ-sañ liggéeykat bu nekk te gëm nañ ni war nañ mën a góorgóorlu pour mettre leen ci condition yu mucc ayib ñëwee gis ma avant dañu déggoo ci kaddu ñu ne nañu créé kuréel boo xam la ñuy waxtaanee boo xool loo xam ne buñ ko jëbalee autorité bi parce que xam nga yokk salaire loolu du ministère de l' agriculture la fonction publique ak ministère des finances ñi nga xam ne ñoo yor koppar bi mais ñu def kuréel boobu pour bu ñu liggéeyee ñu am lu set loo xam ne bu ma ko yóbbee ma mun ko défendre loolu arrêté signé nañ accord bu ñu signé si ñoom parce que tant que pare ñu liggéey boobu mënuñu signé accord accord yi du maa koy signé ministre de la fonction publique moo koy signé donc ñun daal li leen ñaax mooy ñu dem toog liggéey liggéey boo xam ne vraiment bu ñu ko yóbbee fu ñu ko war a ñu mun ko accepter ñu am ay accord yoo xam ne war na a yóbbu seen liggéey ci kanam xam nga jamonoy mbas lañ nekk te loolu dafa indi coppite ci àdduna bi ba suñu plan Sénégal Sénégal ajustement boobu mbéy moom moo ci jiitu ah souveraineté alimentaire maanaam béy dund fii ci Sénégal comme ni ñu koy defee nii loolu moo tax mu yokk suñu budget ren te macha allah du xam ko du ko rëcc parce que gis nañ tool yi te bëgg nañu programme boobu fii ba at yu néew Sénégal duñ jéggaani lu ñuy lekk muy ceeb muy dugub muy leneen duñ ko jéggaani ci loolu tànk yooyu lañ nekk te incha allah ministère de l' agriculture dina taxaw ba loolu mu am. Moussa ah, Baldé mbéy moomee sax nag ñuy waxtaanee moo ñuy dugal ci wàllum politique ndax nag mbéy mi doxul doxaalewul te it nag war nañu ko yeesal dimbali béykat yi njàng mi ak paju mi tamit daal dinay sooxe lool ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Souleymane Ndiaye njiital parti bii di s d moom mi gis ne sax nag réew mi lépp nagam taga cémbee ay kàddoom ak noa bi yaay réew mi moom mu ne ne dara doxul wàllum mbéy mi indépendance ba tey béykat yi dañ doon béyee 1960 ba tey noonu leen continuer di béy donc war neen yeesalaat suñu façon yu mbéyin réew mu mel ni Europe population bi soo ko jëlee téeméer boo jël ñetti nit ñoo siy béykat ñetti nit ñooñu rek ñoom ñooy dundal pratiquement Europe dama joxe exemple waaye fii kuñ ne béykat nga daanaka doo am sax loo lekk alors que béy moom moo war a doon le moteur de tout développement économique maintenant lu tax loolu am différence parce que réewu tugal yi ñoom dañu accompagner seen béykat yi dañ leen di jàppale alors que fii dañu naan deretu béykat yi su mu mënee wax loolu parce que nu ñuy def mooy su nawet jotee ñu jox la jiw jiwu gerte à la fin de la récolte gaa ñi ñëw ne la temps ngay jaayee gerte bi fixé mooy mburu te mburu boobu CFA base de blé ay milliards yu ñuy jël di ko jox bitim réew mun neen ko def fii si réew mi ñu doxal mbéy mi côté njàng mi ak jàngale bi loolu aussi dara doxus joxe naa réew mel ni Corée du Sud Japon Chine ak yooyu dañoo dugal xaalis bu bëri si mbéy mi moo tax ba léegi alhamdulilah réew mi di Sénégal da ngay dégg ne 43 pour cent di budget ñu ngi ko alloué à l' mais loolu vraiment ay pompe la rek aux yeux suñ ñëwee également si wàllum santé couverture maladie universelle la république hôpital dañ ko fi def rek pour di clientélisme politique mais fii ku fi feebar te amoo moyen da dem si morgue donc loolu war nañ ko kiyaat. Souleymane Ndiaye li ñu war a bàyyi xel nag jamono ji mooy ne mbas mi am na tey te it jeexagul kenn ku nekk nag daal di fexe aar sa bopp laata ngay wax mesure yi état bu Sénégal war a jël loole nag ko xamle mooy njiital Pastef mi doon àddu rek jëmee ci njiitu réew mi ni mu yoree mbas mi ci réew mi la ko xamle ba mu dikkee jaale si ci dëkk bu sell bii di Medina Baye Ousmane Sonko mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. waaw xam nga état moom defe naa wees na ndax euh, bi mbir mi nekkut ne jon dañoo woote ñëpp bañ demee la ñu waroon wax wax nañ ko suñu xalaat am leneen luñ doon xaar nag yu ñu digoon ci mbir mi nuñ ko bëgg a doxale loolu mosu tey si moo tax fi mu toll nii damaa ñëw tey ci cadre dëj ak njaale du moment politique du moment def critique politique bu soobee yàlla ci diir gu gàtt man ak ñi ma àndal ci suñu cadre parti lépp ñu ngi koy dajale lépp nañ ko caytu dañ jàkkaarloog sénégalais yi wax leen mbir mi nu mu demee waaye li ñu mën a wax rek mu mën a méngoog li ñu tax a mooy toujours circonstance yu mel nii rafetal ak wax lu luy jëmale nit ñi kanam si woo Sénégalais yi soññu leen ñu xam ni même su dee ñi ñu jiital amoon yaakaar si ñoom peut-être mbir mi niñ ko gérer demewul noonu waaye nañu xam ni premier barrière bi premier niveau bi ci ñu moytu ba lii bañ a lor nit ñi mooy kenn ku nekk ci ñun naka ngay comporté wu te loolu defe naa borom xam-xam yi wax nañ su ma nee borom xam-xam nag surtout boo ko waxee ci olof suñ nee borom xam-xam rek ñu ngi xalaat oustaz bi wala imam bi wala déet ci domaine bii ñu nekk nii dafa am ñoo xam ne loolu la ñu jàng seen àdduna yëpp liggéey ci ay cinquante ans ay vingt ans ay trente ans mel noonu ñooñu ñooy xam xam-xam yi ci fànn gi lañ ca a jëlee ci diine du waroo sax ak ñoom li ñu wax ndax soo seetee njàngaleem yonent bi alayhi salaam li mu wax ni feebar yi nga xam ne day wàlle wàlle bu gaaw su amee naka la ñu war a comporté woo loolu wuutewul ak li nga xam ne moom la ñu médecin yi ak ñi nga xam ne jàng nañ mbir mi loolu la ñu wax kon liñ ci mën a wax mooy nañu bàyyi càggante bi parce que sénégalais dafa sàggan te li ñu mënul départ mu am nañ ko trop waaye arrivé zéro bu ñu commencé une semaine deux semaines rek ku nekk commencé na ah gars yi dañuy wax rek a taxawal adduna bi yëpp ak tubaab ni mu gëmee koom-koom tey koom-koomu àdduna bi yëpp taxaw usines yi tëj avion naawatul loolu du caaxaan kon kenn ku ne takk masque jafewul na nit ñi di góorgóorlu di takk masque yi di jël mesures yi di essayer respecter distance si autant que possible gëm naa ni peuple bi daal moo mën a wàllu boppam fi mu toll nii parce que dafa mel ni ñi ko waroon def mbir mi dépassé nañ ba dañu ne waaj ku nekk na xool nu muy sooyee boppam ci gàttal daal loolu lañ a wax mais di leen jox dig daje ci dul sori loo xam ne ci liggéey bu xóot aussi bi ñuy def dinañ ci prononcé wu lu baax dinañ ne baax na lu baaxul dinañ ne liit gisuñu si njëriñ kàddu yu Ousmane Sonko dañuy yàddu rek ba tey jëmee ci wàllum politique waaye bi la yoon gi am jamono ji ci diwaan bi euh, Papa euh, euh, ba ñuy laam-laami ne Pape Simaxa léegi la bokk tey dañu ko yebal ci madame le maire Insa Diouf moo yore kàddu ya crème andi na ci ay leexal ci micro Cheikh Ababacar Dieng fàttali rek ñuy wane ne Pape Mademba bi tey président mouvement crème Kaolack sur les rampes de l'émergence dooleel politique gu chef de l' état Macky Sall dafa bokk ci mouvance présidentielle bokk bi mu bokk ci mouvance présidentielle ñëpp nangul nañ ñu ne nit ku yaru la nit ku tee la nit ku mun a sàmm relation la mais nit ku am jàmm la ak tous les responsables yi nga xam ne ñu ngi fii Kaolack bokk ci mouvance présidentielle su ma waxee responsable yi génnewuma ci dama ciy jiital Rahma jiital ci Mariama Sarr ñoom Awa ñoom benn solo ñëpp xam nañ ne Pape Demba relation bu rafet la seq ak rafet ñun ñi nga xam ne ñoo yor kàddoom ñu leeral li ñu leeral mooy Bamba Demba bi tey ci lim ñu jàngal mooy ne lépp lu ngeen mun a def ba mu gën a juboo ak ñi nga xam ne ñoo nekk Kaolack dee leen koy doxee dee leen koy waxee kon képp koo xam ne yaa ngi jóg yaakaar ne danga ànd ak Pape Demba bi tey wala nit ñi di yaakaar ne da ànd ak Pape Demba bi kàddu yooyu yëkkati muy kàddu yu safaane muy kàddu yu ñu rafetluwul muy kàddu critiqué di koy jëmal ci les membres de la coalition benn Bokk Yaakaar Pape Demba bi tey rafetluwul loolu te ku koy def yónniwu la digalu la soxla ko te du genre boobu aussi lay soxla pour ñu ànd ak moom ci politique ci Kaolack. barke démb bi ñu déggee Pape Sir ma xam ne fi nekkoon ci Madické te léegi ñu euh, ñëw na ci yéen bu mu defee ab sortie ci kaw maire bi ñëpp dañoo jàpp ne Pape Mademba Bitèye moo ko yónni. xam nga loolu ku koy xalaat c'est-à-dire sa xalaat moo gàtt wala nga jóg ci pour yàq mais yàlla dimbale nañu Pape Mademba Bitèye bépp action boo xam ne mu ngi koy def fii la te mu nekk ci compétence su mairie bala koo def dina diisoog sëram Mariama Sarr ñu waxtaan ci barkaati démb fii lañ jël ay joxe ci koñ ñu xam ne kat éclairage public ci domaine u mairie la ñu yëkkati ko jox ko Mariama Sarr muy diggante boo xam ne diggante frère la ak sœur dara xeju ci te bu ci xejal dara lu ñaaw. Insa Diouf dañuy des ak moom ba tey Papa Mademba bi tey nag boolewul dara ci wax te sax Pape si ma xam ñuy wax noonu nag Insa Diouf ne duggagul ci biir mouvement crème kon nag lépp lu muy wax engagé wul mouvement bi boppam la engagé Insa Diouf ba tey ci micro Cheikh Ababacar Dieng. Pape Sima nag su dee dafa wax. c'est un jeune leader politique. te waruñ caa man duma ci sori parce que dafa am plateforme di wax à son nom engagé ko loolu moom la engagé mais engagé wul le mouvement parce que ba moment bi ñuy wax ni même su dee Pape Simakha Sarr tàllal na loxo Pape Demba bi tey kenn déggagul aussi ñëwam d'une façon officielle ci biir crème. kon ñëwagul àndul ak Pape Demba bi tey. ba moment bi may wax nii n'est pas encore un militant du mouvement crème kon donc tey lépp lu mu wax aussi buñ jàpp ne mouvement crème moo ko wax parce que mouvement crème a wax a dem bi tey bi la wala man mii di porte parole bi te nag ñëpp xam nañ ne loolu du jikkoom ñëpp xam nañ yaroom maandoom teeyam ànd boole ñëpp digganteem ak les responsables de Kaolack en l'occurrence le maire Mariama Sarr bu rafet la ngir yàlla ak yonent bi aussi nit ñi nañ xool lu rafet di ko ci dox di ko ci wax te bañ a seet ñaar ñuy ànd te ànd juboo ñu bëgg leen féewale y a aucun problème ci diggante boobu te mun mënta am problème parce que Pape Demba Bitèye dafa bokk ci mouvance di dépendre ci la mouvance présidentielle discipline bi mu wone ci nit ñi discipline boobu la traduire ci démarche am ba lépp lu muy def bala mu ko def da ci déglu ki nga xam ne moom mooy le président de la république te foog naa ne Pape Demba Bitèye am na leneen lu euh, ko doy lu nekk fii aussi di yónni ay nit pour di di samaay de gauche à droite vraiment loolu nekkul ci dynamique boobu. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM. 90 point 1. ba tey rek ci ay xibaar yu wér te wóor daal di yàddu rek daal di jëmee ci leneen l'ONG Nda Jeunesse Action bànqaas bi ci Kaolack nag amal na am ndaje mu am solo ni ki démb mu nekkoon nag ab lël bu dox ci seen ak digganteeg seen kab yi jubluwaay bi nag moo doon rek jox leen ay jumtukaay yu am solo ci lu soxal mbiram schéma de référence maanaam daal ñu xam naka la ñuy def ak tamit fan la ñuy jaar ba rekk daal di saafara nag jafe-jafe xale yi ci mbedd bi Fari Ndaw animateur la ci Nda Jeunesse Action ñu Ndiaye. waxtaan ci schéma de référence mi mooy maanaam xale yi bu amee jafe-jafe wala bu nekk situation bu jafe-jafe mu xam d' abord ki nga xam ne mu xool kan la ci war a diisoo ak aussi fan ak la baax ñu xamal leen également les premiers secours bu amee noo ko war a taxawoo fa war a jaar ak noo war def ka ba en tout cas ci loolu nekkoon avec les cap de Kaolack problème boobu moom day insister parce que nga jëm à plusieurs niveaux bu ci la prolifération des daara maam dëkk Kaolack dafa nekk euh, zone Carrefour mais également Kaolack dafa nekk une zone sociologiquement dafa bëri ci kër gi ñëw ci mbedd mi léegi nag xale bi nag moom bu xasee ñëw ci mbedd mi nekk xale mbedd lañ ko mën a tuddee quoi moo xam ku daw daara la moo xam ku doon tukki la te fii moo xam également ku am jafe-jafe ci biir këram nekk ci mbedd mi quoi mais tey li mu la mën a waxal la Kaolack nekk na zone boo xam ne zone bu xaw a xaw a jafe la bu nga doon nag tey ci ci couleur yi danañ Kaolack été rouge quoi ci cité xam ne a am solution ak problème am a xale bi na nga xam ne également xale dañuy ñëw maam doon daw daara wala ñibbi seen dëkk am xale yoo xam ne également dañ doon tukki moom jóge ay Guinée ne dañoo bu fii Kaolack am escale am problème bu ñibbi mais instant déjà passé nañ cinquante on est à de soixante enfants yoo xam ne déjà dellu Faria Ndaw lii tamit rek ponk la woon ci njëlbeenu ah, xibaar yi mu nag soxal rek wàllum njàng meek njàngale mi ah, donte ne sax atam ren ji nag amoon na tuuti gàllankoor ci wàllum njàng moomee ndax lii di Covid 19 bi waaye nag teewul ndongo daara yi def baccalauréat ak jàngalekat yi ah, fare ci ay centre yu bare bari fii ci diwaan bi ñoom nag la ñu wax daal mooy ne xel dal na te it nag lépp yemb na ànd ak i matukaay Cheikh Tidiane sax ay fan rek des candidat yi soobu ci li ñuy wax bac bac ren bi nag tombeek mbas mi ñuy wax coronavirus ci protocole yi nag candidat yu bëree bëri ñu ngi ci li ñuy wax dernier réglage yi. ñu ngi def lii AG la moom la def. moom groupe de kii def jox keneen ki mu def. ñu ngi fii ci école Gambetta ñu gën ko xam ci lycée El Hadji Abdou Hamid Kane fii nag ndongo yi boo leen fekkee ñu ngi ci révision yi ñenn ñi nekk ci cours bi di waxtaan. professeur yi toogee ne wante kàddu gi benn la ñoom ñëpp jamono ji ci confiance bu mag a mag la ñu nekk. dañuy xaar le jour de l' examen ñu war mais jàng moom def nañ ko ba pare instant yi des yàlla moo tax. mbaa tiitoo leen. non non. moraal bi daal mu ngi fi. waaw mi ngi ngeen doon def si tey. tey dañoo ñëwoon def si tuuti révision rek. grand mbaa moral bi baax. oui ça va sant yàlla. Hmm. oui sant yàlla baax. centre Gambetta nag matuwaay yëpp daanaka kilifa yi jël nañ ko waaye tamit ànd ak respecte li ñuy wax mesure barrière yi bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Soxna doon censeuru El Hadj Abdou Hamid tout est fin prêt pour le bac du 2 moom disposition yëpp jël nañ ko office du bac renforcé nañu en gel hydroalcoolique ak masque réceptionné nañ matériel bi le sujets sont sur place ak salle yi aussi service d'hygiène ñëw na pulvériser ko toilette bi aussi comme d'habitude dañu am ay femmes de charge yoo xam ne ñoom régulièrement chaque jour dañuy nettoyer toilette bi ba mu set muy lycée Valdiodio Ndiaye école Medina Baye wala yenn ci école yëpp yi nga xam ne jot nañ fa dem visiter ko ndong ndongo ñu ngi ci révision yi di waajal bu a baax bac bi te ñu war ko amal niki àllarba bi. Jokko Jàll Cheikh Tidiane Sarr dañuy des ba tey nag ca boobule mbir bésul examen yi nag surveillant yi nañu dawal yërmande kilifa yi tamit bañ a fàtte matukaay yi boole ko waajur ndongo yi dëfal seen i doom te nag daal di leen di toppatoo lu ni mel nag di kàddu uran euh, national bu UNAPES UNAPES nag mooy kuréel gi jaboote association parents d'élèves yi ci Sénégal gépp Bara Gueye ak Cheikh Tidiane Sarr. école bi arrêté woon na jàngaat nañu ba yàlla def ñi ngi jàkkaarloog examen yi CFA jàll na am na xëy na tuuti yuñ ciy jàngat waaye ñu ngi waajal bac bi ak BFM bi danoo bëgg nag lépp loo xam ne gis nañ ko ci CFA bi mu doon loo xam ne gàllankoor la woon ñu teel koo moytu ci bac bi ak BFM bi di interpeller nag autorité académique yi yi nga xam ne ñoo yore njàng mi de par là ñu parlons du ministère de l'éducation nationale que jël seen disposition yëpp ba mat ndax ba ñuy reprendre école bi parents d'élèves bi dañu woon lu gën suñuy doom te nag suñu doom duñ ko jël di ko sànni ci loo xam ne da koy bi ngeen xam ne moom ngeen di wax waaye bala ñu koo nangu nag xale itam da ngeen leen di assurer benn sécurité bu mat sëkk sécurité sanitaire moo taxoon ñu waxoon les mesures barrières à l'école loolu état bi jëloon na ko matale na ko léegi nag phase boobu jeex na ñi ngi dem ci examen l'élève quitte son école pour dem ci beneen centre di fa defee examen centre boobu dañu bëgg mesure barrière ya nekkoon ci école ba mu jógee mesure yooyu bu demee mu fekk ka moo xam toilette la na fonctionnel defar ko balaa xale yi ñëw ndax dañ koy mu defar ko danoo nekk jamonoy nawet jamono joo xam ni yàllaa moomam ndoxam jamono ju ko neex mu indi ko kon bu fekkee ne taw na ñu ngi ñaan aussi président du jury boobu ak chef de centre bi ñu doxal yërmande ci yenn xale yi nga xam ne doon nañ accusé quelques minutes de retard huit heures lañ ni ci la épreuve yi tàmbali mais ku ñëw huit heures cinq huit ba huit ba huit heures de la situation bu fekkee jouru taw la war nañoo mën bàyyi bu baax di leen dalal seen xel di dalal seen xol ba pare boole koog nag ñuy jumtukaay yi nga xam ne moom lañ war a def ca kër ga xale bala moo génn nañ fexe ba defal ko ndékki kon ay kaddu ya Bara Gueye nekk nag coordonateur régional bu UNAPES UNAPES nag nekk kuréel gi jaboote association des parents d'élèves yi ci Sénégal ak gépp bàkk boobee nag euh, miin ngeen ko seen rubrique jàngadoo ci beneen anam tey jii nag daañu leen baaxee njàngale mag ñu baax ñi ci wàllum euh, néegu sëy yi lu ko jiitu yi tamit nag daañu jàngi ji rek mbiram orthographe verbe yeeg nañu leen di conjuguer ci subjonctif mbiram soxna Ndeye Fatou Cissé lay doon. tey ci samedi jile ñaar fukki fan ak euh, juróom-ñeent ci weeru août 2020 seen rubrique jàngandoo ci beneen anam ni ci kàllaamay nasaraan ak loolee ñu dippee orthographe ak verbe ni muy mujjee ci forme subjonctif. forme subjonctif mooy dafa ci arab mu ngi wax la budda an français dafay conjugué ci juróom benn personne ñett ci singulier ñett ci pluriel mooy jamoo alors première personne bi e ñaareel bi ES ñetteel bi E. ponk bu ni mel nag ñu di ci ànd ak monsieur bun Omar bi Biteye di professeur de français tey ci kër retraite moom ak yéen ñi nekk kon ci déglu gi ñu leen di wax dal leen ak jàmm. ak verbe bi nu mu mën di doo rek E la e, ES ci singulier bi jamhu bi première personne IONS e, deuxième IEZ troisième ENT sauf ñaari verbe avoir ak. être waaw imparfait du subjonctif moom verbe amul benn exception dafay terminer terminer ci première personne deux S E deuxième personne deux S E S troisième personne bi par force day mujjee T waaye T boobu nag li koy jiitu xalaa ko laal dafay nekk A accent circonflexe wala I accent circonflexe wala U ak accent circonflexe foofu na moom li tax ma wax la mooy il fallait qu'il parlât il fallait qu'il dormît il fallait qu'il reçût parlât boobu am bi dormi bi im bi reçu bi UEM bi yooyu dañuy am attaque ci complexe tey bi soog a ñëw. file nag lañuy ñu yemandeeg ci seen rubrique euh, jàngandoo ci beneen anam. Euh. mu tiim ko ne ko doom repas bi nga ñuy noon de ak kër gi nga dëkkoon yaa ngi koy génn tey rek waay doom boo demee nangu la doon jàmm bu jigéen boo ko doonee rek waa ji doon jàmm bu góor de maa ngi lay dénk nag fukki yëpp ndax ko moytal bu baax ànd bi ci biir néeg bi na rafet daxasoo gi ci bëccëg bi na taaru kala na rafet kii na taaru su ngeen duggee néeg ba wax soxla jot rek waay doyru su ngeen génn ci biti ba santaane service jot gor yi teew rek waay nangu dig daje beneen yoon incha yi bitim réew xabaar yi euh, biti réew Cheikh Tidiane Sarr na foo koy dooree. ñu dooree ko ca réew mi di Côte d'Ivoire wax ci élection présidentielle yi nga xam ne ci weeru octobre bi di ñëw lañ ko war a amal foofu la ca réew ma nag jamono ji nag ñu ngi ci wàllum daal déposé candidature yi bu ci mujj nag moo di candidature bi nga xam ne daal moo di Pascal Affi N'Guessan bu FPI nag di Front Populaire Ivoirien ak Henri Konan Bédié nag euh, bu PDCI Parti démocratique bu Côte d'Ivoire ñoom ñëpp daal déposé nañ soxna Ngoné seen candidature waaye nag ci élection yooyu la nag jàppal na daal ku fi danoon njiitalu réew bu Côte d'Ivoire di Laurent bo ak euh, premier ministre ba woon tamit di Guillaume Soro ñoom du ñu bokk ci élection yooyu lee ndax dañ leen ca génnee ba mu set wecc nag Alassane man Ouattara nag moom dafa bëggaat li ñuy wax ñetteelu mandat ba tax mu ngi ci wàccaay yi ñuy xaarandi yeneen dogal yi mujj yi nga xam ne kilifa ya war nañ ko jël ca réew ma. xabaar yi. bitim réew ñu jubali sa Égypte wax ci Mahmoud Ezzat Mahmoud Ezzat nag di guide suprême maanaam njiitalu ñi nga xam ne daal moo di frère musulman yooyu nga xam ne nag euh, am nañu doole lool ca réew mii di Égypte jaarale ko ca Caire nag moom nag daal nee nañ dañ ko teg loxo foofule ca ker di capitale ba xibaar ba nu mel nag ministère bi ñu dénk wàllum biir réew ma moo ko joxe nag gannaaw bi nga xam ne soxna Ngoone ñu ngi ko doon wër lu tollook juróom ñu doon wax ne sax mu ngi Turquie ñeneen ñi di wax ma ca Qatar ko gis foofule ca Égypte ca capitale ba ba mujj gaa teg loxo Mahmoud Ezzat nag nekk ku ràññeeku ci xeex bi foofu foofule ca Égypte mu wutu sax ca place boobu ki nga xam ne moo fi danoon juróom-ñetteelu gidd ci lu jëm ci frère musulman yi nag gënoon ko xam ci Mohamed Badi moom tamit ñu tegoon ko loxo ci atum 2013. xabaar yi. bitim réew ñu jubali ca Amérique wax ci élection présidentielle yi nga xam ne nag moom tamit ñu ngi koy waajal bu baax a baax euh, soxna ngoone ñu war ko amal ci weeru novembre bii di ñëw jamono ji daal euh, ki nga xam ne moo di Donald Trump euh, jiite républicain yi nag moom samp nañ ko ne daal moo war a doon seen candidat nee na nangu na bu baax a baax choix bi nga xam ne partem def na ko ci moom waaye nag profité na ci daje bu nu mel nag attaqué bu baax a baax ki nga xam ne daal moo di njiitalu démocrate ñu gën ko xam si Joe waaye nag bu ko kenn yaakaar mu mën a jiite Amérique moom Donald Trump tamit profité na ci daje bu nu mel nee na fas yéene na tamit yëkkati waatu koom-koomu États-Unis bu baax a baax buñ ko tabaatee ca njiitalu réew ma waaye tamit xamle na ne si lu yàggatul dara danañu am ab vaccin ngir jàmmaarloog mbas mi ñuy wax euh, coronavirus. xabaar bitim réew ñu jeexalee xibaaru bitim réew sa Japon ak démission bi nga xam ne daal euh, maanaam tekki ba tànk bi nga xam ne def na ko moom élimaanu jëwrin ba muy premier ministre ba ñu gën ko xam ci Shinzo Abe nag moom daal nee na daa démissionné ca poste boobu nag naaw bi nga xam ne nag dafa xaw a am li nga xam ne moo di jafe-jafe ci wàllum wér-gi-yaramam ba tax mu démissionné ci poste boobu ngir bañ a indil benn jafe-jafe waa réewum di Japon moom Shinzo nag ay mu ngi toll si juróom fukk ak juróom jamono ji nag démission boobu moo jur débat foofu la sa Japon soxna ngoone wante nag kenn xamagul kan moo ko war a wuutu ci poste boobu. xabaar yi bitim réew. bitim réew yi jeex na soxna ngoone ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi. xabaaru bàkk ba jip xabaar yi tàggat yaa xama door Serigne mu Kane maa ngi lay nuyu Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokku auditeurs yi ñu sóobu ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ca France ak ñaareelu bëccëg Ligue 1 bi nag tey bu ñetti waxtu jotee Rennes mooy laaleeg Montpellier Strasbourg di laaleeg Nice bu juróom-ñaari waxtu jotee suba nag Reims mooy laaleeg Lille Saint-Étienne di laaleeg Lorient Metz di laaleeg Monaco Nantes di laale ak Nîmes Angers di laale ak Bordeaux Brest di laale ak Marseille ñu dem ci Angleterre Community Shield bi nag tey lay door bu ñetti waxtu jotee ba teg fanweeri simili Arsenal Espagne la ñu jëm nag ginnaaw bi mu bàyyeekoo ci Aspia Academy Dreams kii di Moussa Ndiaye nag daal di nay fekki waa FC Barcelone daal di xatib ab contrat wu ñetti saison ànd ak option boo xamante ne ñaari at la ak clause libératoire boo xamante ne yóbbu nañ ko ci cent millions d'euros ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci club catalan bi ñu dem ci Turquie nag ancien international sénégalais bii di Moussa Sow fanweeri at ak ñeent moom nag daal dinay am ab club bu yees ma nga dem nag fi nga xamante ni moom mooy Umrani Sport nekk ca Turquie daal di dafay xaatim ab wu benn at ak benn année supplémentaire Chelsea nag Thiago Silva fanweeri at ak juróom daal di jongante lu toll ci fanweeri match ak juróom ak benn but ci compétition bépp ci saison bi weesu deux mille dix neuf deux mille vingt moom nag day dem fi nga xamante ne moom mooy Chelsea daal di fay àggali li nga xamante ni moom mooy carrière am xaatim na fa ab contrat benn saison ak benn année supplémentaire Côte d'Ivoire la ñu jëm nag ginnaaw bi nga xamante ni commission électorale bi daal di nay dàq candidature Didier Drogba FIFA nag ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci rajo France Internationale nationale daal dinay wax ne ñu suspendre processus électoral bi waaye foofu dafa ni waa fédération ivoirienne bu football ñu daal koy defal ay compte del soit fii ci sunu ma réew jeexalee ko ci lamb combat Boy Niang 2 ak Tapha Tine kii di promoteur bi nag di Papa Thialis moom nag démb daal dinay verser kii nga xam te ne moom mooy Tapha Tine ñaareelu xaaju kopparam yi ci cachet bi bu dee Boy Niang 2 nag moom moo ñëkkoon a jot li nga xamante ni moom mooy ñaareelu xaaju tranché ma kii di patron Leewtoo production nag daal dinay bétonné li nga xamante ni combat bi war a dox ci diggante Boy Niang 2 ak Tapha Tine ma nga ko Ngoné Ndiaye ren gannaaw bu ñu la ñaanalee kandaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi atum jàmm ak salaam. li ci yéene kaay yi. yéene kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf.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 halaan bikum réeroo xamul ñàkk a waxtaana xam police bu Sénégal jàmm juboo dox na ci diggante ñenn ca ñoom ña meroon ak seeni kilifa enquête yéene kaay moo ñu xamal ne promotion 33 34 5 ba 36e léegi fañ leen di def ay biir gàjjee maanaam lañ doon ñaxtu mooy bañ seen rakkee jiitu leen loola fi mu toll ni teg nañ ab plan ngir ànd ca saafara faneen fu xamagut saafara mooy dialogue politique bi réeroo bu métti moo dox ci diggante ku jege ak nguur gi yow seet njiital nekk président ba pare jiite parti opposition bi fa ñoo lànk na dootul fi am ku jege leen dana fi am ñu ne déeta waaye képp ku nekk maire ci sa diiwaan soo faatoo dee kan moo la war a bi nguur gi neneen premier adjoint au maire ba topp ci yow moo lay remplacer ku jege na leen ñoo bañ fañ ko war a woteewaat ngir tànn ko ñu ne déeta waayeti kan mooy organiser élection yi moo xam présidentielle wala locale yi ñi far ak gi neneen jëwriñ ju ñu dénk wàllu réew mi moo koy organiser ku jege na leen ah, ah ñoo bañ fa ñoo war a jël kuréel goo xam ne fa ñu tëddee njaaxaanaay faruñ fenn ñu denk leen ko ndax ku far nan ngay attee lii nag mooy point yi nga xam ne les écoles yéen a kaay nee ku jege juboogun ci boo mooy tuur nag carte dana fa gën a jaxasoo si di quotidien na ko fa jaxasoo ba noppi ndax waxtaan wi ñuy def diggante ku jege ak nguur gi ci dialogue politique bi waxtaan wi ñu tëx luu la kenn nangu ta dégg sa morom xaj na nag mën naa am talaata bi di ñëw danañ amal dajee seen biir ngir mën a juboo lu ko mooy njiitare Macky Sall mooy mujj ñëw xatte nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne benn fan ci weeru septembre ci la université yi di tijjiwaat waaye coow judd na fa de aayaw seetal étudiants yi fa ñoo wax na buñ tijjee ñoom ñëppay dem jàngi kilifa yi université yi na leen déedéet ñoo bañ fañ koy xaaj ay pàcc-pàcc bu ñuy ñëwee tey ñu la ñëw beneen yoon université bu Ndakaaru na d'accorduñ diwaanu Ceesin na d'accorduñ lam d'accord nag ba wax ko moom enquête yéen a kaay mooy nañ moytu daal université yooyu bu fa corona bi dugg law su boobaa du baax de li baaxut nag ci këru liggéey kaay entreprise yu ndaw ak yu ndaw ndawaan yi mooy corona bi PME ay jafe-jafe yu du jeex moom la leen bi andil seen lépp taxaw terewul nguur gi ne nañ génn nañ benn milliard ngir dimbalee leen ko si du quotidien moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom bi andi ay njeexatal yu doy waar ci xale yi tu tànk yi na jaxase ci xanam gu jéggi dayo seeni waajur gën a jannaxoo te baaxut li baaxut nag mooy rapport bu banque mondiale def 2018 2020 ci doyin business laas yéen a kaay ñi ko xamal turbine yéen a kaay dëggal ko moo tax waa banque mondiale ya nee fa ñu dakkal arrêté rapport bi ba pare xamal enquête audit ngir xam mbir yu jaarut yoon yañ fa gis ñan ñoo ko fa def turbine yéen moom xëy di laajte ne milliards yi juróom-ñaat téeméer ak juróom fukki milliards programme xeex mbënd mi te tey jii la waalo gën a aay askan waan ci mbënd mi jafe-jafe yi du xaddu jeex demal diiwaanu Kaolack ndangaan foofu nag fala raay ba téenee ñoo gën a sonn ci mbënd mi naka diiwaanu Fuuta Jolof banlieue bu Ndakaaru nañ dimbale askan wi sonn nañ waay waneen askan wu sonn mooy bu réewu Mali ginnaaw foqarti nguur nga fa xam réew yi bokk ci CEDEAO xamalaat nañ ndaju seen biir a a gaawee nag par force fara force doole mbaam mooy njiitëram Macky Sall xaaju ñetteelu mandat moom la bëgg andi Sénégal Barthélemy Dias moo ko ko tuumaal ci Vox Populi lii yéene kaay xëy di ñu xamal ne askan wi ñu ngi xaar rapportu ARMP jëm ci coow li dox diggante Sénélec ak Akilee yëf fa war leer li leerut sunu làmb yéene kaay ba tax mu xëy di ko laajte mooy ne Mohamed Ndao Tyson foogu leen ne moo nar a nekk président njiital CNG làmb ji ci kanam raw jaar-jaar ci bëree ak écrit bul faale stade yéen a kaay duñu xamal jongante bu mag diggante Liverpool Arsenal ca Angleterre ma teer ci enquête yéen a kaay fekk fa ay soxna yu seeni borom kër faatu ca diiwaanu Ndar te seen jëkkër ya ay mool lañu woon ci ndox mi lañ faatu coono bu du xaaj jeex ñu ngi koy dund fañ leen a seetaan kenn dimbale wut leen ñoom ci seen bopp ñoo yor seen njaboot ga waa ana état bi ba tey yéen a kaay bi di ñu xamale ak benn soxna caana seem jàmbaaru fàkk tëdd la jigéen ju mën góor liggéey kat nga fekkat jëkkëram nekk bitim réew mu toog di ko xaar ay at yu jeex li war a jeex Sénégal nag mooy nëbbatu yàq dàq ëmb te lu fi bari la ah tax soxna si nga xam ne moo jiite mbootaayu sages-femmes yi ci Sénégal ne li ñu war a def nañ waxante dëgg mooy a daganal ëmb jaare ko ci ay garab aay ci l'observateur soxna si nee na bët bu set ngeen dem ci mbalit yi foos yi fekk fa ay ëmb yu yàqu ñu fa sànni te xamule ne léeg-léeg da ngay gis jëkkër joo xam ne moom ci booba moo yàq ëmb soxnaam fekk na xaj na gënu ci wér géeramam te buñ koy def fa ñuy làqatu waaye buñ ko daganalee nag du am benn loraange faxe leen rek ba xale jigéen yi nga xam ne amuñ jëkkër ñoom buñ bokk ci daganal yàq ëmb ndax loolu mooy kaay leen bon musiba la ci askan wi ak loraange ki lor nag benn xale bu jigéen parental boo xam ne bam mu feree yàggut juróom-ñetti at la am mooy benn xale lu góor bu war a def befem xamul lenn lu muy def lu may dem yegg tëddee xale bu jigéen bu am juróom-ñetti at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 cinquante ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi li ci yéene kaay jaajëfal nañ leen bu baax a baax yéen di faxe woon ci wàllum déglu gi jaajëfal El li Libaas Mbay ci wàllum xarale gi ak waa rédaction ci njàppandal gi te it nag ñaanal leen atum jàmm ak salaama jaageen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine